jërë ngeen jëf mbokk yi ñu ngi leen di gërëm bu baax amaat mbégteeg contentement bu rëy si ànd bi nga xamante ni yéen ngi koy ànd ak euh, seen bu mag bii di solution TV ñu leen si jaajëfal bu baax a baax te di leen ci ndokkeel di gërëm ñu amee initiative bi di El Hadj Sanjoogu Mbeng ak son yi bu waaye ti ko gërëm moom Muudu juuf ak euh, Abdoulahi mi nekk si xarala gi ak Abdou Top maa jigéen ñu ngi leen di gërëm bu baax a baax di gërëm Souleymane kànji Ousmane waaye Aïssa ak euh, ki nga xam ne mooy Kia ñoom ñëpp ñu ngi leen di nuyu di leen ñaanal jàmm di wax ni ñu ngi à face Walfadjri bu ñu xëyee 8 heures nañ fi nekk ba 17 heures tey jii nag émission bu mag la ñu am ànd seeg Serigne Muudu jeng euh, dëkk fële sa làmbaay di ab làmbaay làmbaay bu mag a mag ñu xam ko it ak euh, kii nga xamante ni mooy Cheikh Baara Ndiaye muy ànd ak moom doon it lu bari ci moom ñu xam ko ñenn si kilifa yi diine yi waaye ñu xam ko ci réew mi ak ni réew mi di doxe wax dëgg yàlla muy jàmbaar joo xamante ni daal wax dëgg yàlla ku am solo la si yoon wi moom nag fas yéene nañoo waxtaan si ni réew mi doxee fas yéene nañoo waxtaan si Cheikh baara Ndiaye ak kan mooy seex Bara ak biñ ko arrêté lañ waroon a def émission bi waxtaan waaye yàlla dogalagu ko woon ba ni Cheikh Bara génnee lépp incha allahu rabbi niñ ko dundee eh, daañ ci waxtaan làmbaay gële nga xamante ni fa la dëkk daanañ ci waxtaan si dëkk boobu di làmbaay waaye dinañ waxtaan ci dëkk bee nga xamante ni mooy tubaa Mbacké dinañ waxtaan ci réew mi ak candidat yi nga xamante ni tànn nañ leen ak ñoom ñii nga xamante ni yàlla dogal na ay waxkat lañ waxkati lu baax lañ waaw dañuy wax lu baax euh, seen diggante ak Amadou Ba ak it euh, Ousmane Sonko mi nga xamante ni nee nañu yaakaar nañ amut waxkat yi euh, lu baax loolu lépp incha allah rabbi nañ ci dikk <laughs> <laughs> am déet. ah yaa ko wax. ah yaa ko wax. ah dina dina leer ci biir émission bi. ah, ah <laughs> maa ngi lay nuyu. waaw waaleykum salaam Baye maa ngi lay siyaare di la hmm. fay nuyoo. Hmm. di yàlla yi julli ci yonent bi alayhi salaatu wa di sant sunu yaakaari tey ak ëllëg Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul hmm. di nuyu waa Lambaay gépp di ñaanal Cheikh Mouhamadul Mountakha mu yàgg fi te wér hmm, di nuyu noonu ngoo ko waxee Cheikh Bara Ndiaye hmm. ndax xam naa sama toogaay fii li ci ëpp ci moom la ndax daanaka moom ngeen miin ba tax ngeen miinaale ma kon toog gi fi moom donc maa ngi ko koy sant balaa maa wax dara di nuyu Cheikh Bara di nuyu soxnaam Kati di nuyu suma soxna ma nit euh, Fat Dieng ak ay way juróom di leen ñaanal sama borom dolli seen tawfeex te dolli seen ndam bàyyi seen bismillah Euh, làmbaay gi nga tudd lan mooy fan fan mooy làmbaay ak kan moom moom làmbaay waaw làmbaay nag bu fekkee indi nañ ko ci baatin hmm. da nga koy moomale Cheikh Aliou Diouf làmbaay Cheikh Aliou Diouf làmbaay waaw ndax sëriñ Touba moo noon ko làmbaay ña nga kawe woon ñoo fa nekk ak ña la suufe hmm. soo demee dana la lotal làmbaay ñëpp nekk ci suuf Cheikh Aliou Diouf làmbaay nga nekk ci kaw mu ñëw dëkk làmbaay daanaka li ëpp ci làmbaay di ay taalibe yi Cheikh Aliou Diouf làmbaay mhm. kon Sëriñ Tuubaa moom loo na ko ci baatin waaw bu dee nag ci cosaan mhm. euh, amoon na benn buur boo xamante ni dafa indi doomam di ko ñaanloo ci benn sëriñ mhm. sëriñ bi daal di ne ko danaa ñaan ci benn téere takk ko ci am picc bu picc mi naawee dëkk bu mu tiim rek euh, da sa doom ji dana yilif dëkk boobu picc mi daal di naaw dem ba ci Kajoor. Hmm. dem fu naa mbul. Hmm. daal ci garabu mbul mooy fi naa mbul ci Kajoor. waaw mun naawaat dal ci garabu geer hmm. mooy fi naa sugeer ci kajoor bi mu dëppaatee nag ci la ñëw ba naawaat ba tiim làmbaay hmm. bi mu tiimee làmbaay fekk ku làmb nii sangu hmm. toog ci garabu mbul mu daal di ñëw picc mu daal ci ko mu ne ko yow noo tudd mu ne ko làmbaan laa seen làmbaan seen laa tudd mu ne ko kon dëkk bi tudd nañ ko làmbaayuk làmbaan seen gi bu dee ci cosaan loolu moo waral làmbaay waaye nag bu dee ci baatin loolu lépp suulu na ah, ndax su voilà bu dee jamono yooyu foo côté yooyu noonu damaa dégg ñaa ay affaire yi am na ay ceddoog affaire yooyu lan mooy ay ceddoog yooyu. waa mu bu njëkk ceddoo ba ñu ngi naan sumbas ngaañ naan weeru gën naan guy ndëngeeg ndaare naan sandagras naan kàddu palukaay naan weeru gën kàmbug jamono kàmbug jamono kon musaana rey fadan lay suul. sumpas ngàññ boo mu boo musaana daw wala nga kii fa la doon toog di ngàññ sab der géej bàkku ku musaana am doole bàkku bay riir da ngay wër ngéejaan gi di bàkku noonu lay demee léegi nag bi Seex Aliou Diouf Lambaye ñëwee dégg nga waykat ba naan ca mooma at la teen tanoor kalaamee seexi bawal ngir bëgg a fay lislaam hmm. jarbaat ba moo jébbale woon dem tuubi ndeyam du jooy mu naan ko tuubi ruubi loolu sax day gudd mag naa rek kabaaki baak mexe ki péncum Lambaye Seex hmm. Aliou Diouf Lambaye toxal na Lambaye saxal laay laaj ji pénc mu daa sabaru mbaa ngay dox di woote hmm. teeñ tanoor a ñëw dajale sëriñi Lambaye ndax ab jarbaatama jébbulu woon dem tuubi nday jedd jooy mu naan ko tuubi ruubi hmm. mu daal di leen dajale Cheikh Babacar Thiergane Ndiaye sëriñ Momar Mané Cheikh Aliou Diouf Lambaye teg paanu deret di leen xoo xooxatal bi mu sëppee paaka bi ci deret ji woo Cheikh Babacar Thiergane ne ko Aliou Diouf bàyyil sëriñ Touba sinon danaa la rey mu ne ko da ngay kàcc dañuy dem Touba fol la tey tekki sa ndomb ak tànk moo gën a yomb lii nga wax noo lànk <laughs> <laughs> ah. <laughs> loolu am na solo de. waaw ah, moom léegi bu doon bu doon jamono jii man ma gisee paaka bi. <laughs> bu doon jamono jii àddina tukki moo waral ñun làmbaay làmbaay xam nga aw fit moom lu nu doon la ndax. weñ gaa nga bañ ca mànjaxaan nga. macha allah leen dimbali nu tamit Sëñ waa waxoon na ne yéen waa làmbaay seen tilim dafa gàkk ci yéen. Mm. ba neexu leen a fóot. ku ne wax Cheikh Babacar Ndiaye Thiergane moo ne ko wax nga dëgg de Mbàkke waaye sa përngal xajut ci tilimi kenn bilaay dëgg la mu ne ko des na leen fóot ba ngeen seet daxaral jant bi xëy <laughs> ah, mbokk yi gis ngeen ko làmbaay yaakaar naa ni yéen ñu fa dëkkee xam naa ni seen xol sedd na ndax lii ngeen dégg nii man am na si maa ngi koy doog a dégg boog mën naa ni waaye nag ndaanaan bu toll nii moom boo ko dalalee mën ngaa dégg lu ne kon ngeen xaarandi lu ne rek continuer ànd ak ñun incha allahu dugal kër yi jërë ngeen jëf yéen ñi nekk si commentaire yi Euh, Cheikh Bara Ndiaye. Hmm. dañ ko gis mu nekk ci réew mi. Hmm. muy ñaan. Hmm. di ñaanal nit ñi di taxaw nit ñi seeni jafe-jafe di liggéey. Eh, di faj tawat yi. ñu jekk-jekk gis ko. muy def ay émission man maa ngi koy gis mu koy def mook saa njóogu par alxemes sodi ma grand seetaan wal fajiri. ñu def première émission yi dem ba si yàgg ñuy def émission bi daanaka di waxtaan ñi réew mi di doxee. di réew mi di doxee di réew mi di doxee. ba ni muy ñëwee far ak Ousmane Sonko di waxtaan si Ousmane Sonko. Mhm. bañ xëy benn bis ñu ni arrêté nañ Cheikh Bara Ndiaye euh, biñ koy arrêté ak maam def ni mu doxee ba ni mu egsee fii ba niñ ko arrêté. Mhm. diggante boobu laa bëgg nga dikkal ma ci après ñu doog a dem si biñ ko arrêté ak ni ngeen dundee arrêté beeg ba niñ ko bàyyee. waa xam nga Cheikh baara bu ma la ko doon tekkil tey ci baatub arab. Mhm. dama naan Cheikh baara dafay mel ni ku naan fardul jaame mooy nit ku beru. nit ku beru. waa nit ku beru. nit ku wala beru. beru nit ku beru waaw. nit ku xàjjee ku daal waaw waaw nit koo xam ne maanaam. loo ko miin miin dangay ngay jékki-jékki mu xaw laa jaaxal. Mm-hmm. jaaxalu la ci Cheikh Bara ni muy toogee du yor big du yor fooy. Mm-hmm. parfois. Mm-hmm. du yor dara mën a mën a jàpp ci bopp bi loo xamante nii bu koy wax danga naan kii nii université la jóge wala nangam ak nangam loolu man d'abord moom njëkk a yéem ci moom. mais comme ci affaire arrestation bi ngay laajte loolu ci dinañ ci ñëw. damaa mus a dem ci sama benn sëriñ boo xam ne yaakaar naa ko lool sëtub Cheikh Babacar Ndiaye Thiergane la ma daal di ñëw ne ko Ndiaye sang mu naa ma ne ko man de sama genn wàll lañ dee. Hmm. mu ne ma da ngaa bëgg mu génn mun naa mu ne mu ne ci kaso beeg mu dee lu la gënal. Hmm. mane ne ko ah mu ne kaso bi de moo ma gënal mu ne nit koo xamante ni amagoo ñeenti ñeent fukki at. Hmm. àdduna bépp xam nan la tabax ngay kër. di xalaat xalaat bii ngay xalaate da ngaa jàpp ne yàlla da lay bàyyi noonu rek ngay dem faaw yàlla jëlub natt teg ko ci sa kaw. Hmm. ngir ngir ngir saw yoon mën a àgg. bu ko tegutoon natt bi lu nekk mën naa am moo tax kaso bi ci benn côté sant yàlla lan ciy def. Hmm. mais nag dund nañ ko dundin woo xamante ne nii metti na. Hmm. parce que maman boobu. bi may nekk Walfadjri naa li mu yor ci ay di leen fay ëpp na vingt personnes. am na benn mara gëmu ko woon. dafa ñëw ba ci biir kër gi daal di ne bi mu ñëwee ba ci biir kër gi ci la ne ma mu jeng li nga doon wax wal fajri hmm. maa ngi soo a gëm ni dëgg la bi mu ñëwee ba xool ni kër gi di doxee hmm. léegi nag koo xam ne yow li na sa biir kër ëpp na vingt personnes hmm. bokkut ak ñu nekk cees bokkut ak ñu nekk Casamance bokkul ak ñu nekk Touba léegi ñu xëy xëy arrêté la yow benn jour léegi ñoo ñëpp nga xam ne tey yaa leen ameloon dépense bokkut ak ñuy ñëw donc loolu boo ko xalaatee day day day xaw a ci sa xol léegi sax baara ni nga tàmmi woon ab mu toog di ak yow ba quatre de matin mu xëy dem liggéey ay liggéeyam léegi nga war a mën a toog benn moment gisoo ko loolu su dee nit nga di dina def benn jeexintal ci yow boo xamante ne nii loo dëgër dëgër dëgër dëgër dëgër di nga sari. Hmm. loolu moo ñu jàppoon ñun ñëpp. loolu moo ñu jàppoon mais si arrêté ñu bëri sax def naa seex bi bis bu génnee dina dugal ay plainte ndax gars yi nañ xëyee rek ñëw këram ñu yor ay fital def leen nii def leen nii toj bunt yi rajaxe jël ko yóbbu. barki dem waxtaan na ak moom ne ko nangam ak nangam danga ko war a saafara mun na ma Modou Dieng mun naa mun na ma koo munta muñ ak tooñam matagoo ko kilifa. koo munta muñ koo munta muñ ak tooñam matagoo ko kilifa. Mm-hmm. ma li Cheikh man man mu man xam naa ne. Mm-hmm. li gën a metti ci àddina mm-hmm. nga xamante ni maanaam tey bu ko nit defoon avant ngaa pelante police ñoo ñëw jëlsi la bu ko nit defoon seex Bara bu fekkee am na ci dogal bu police ñëwee këram mu ne bàyyi leen ko pour Cheikh Bara bind pelant nii jébbal ko nit damay pelante loolu yaakaaruma Cheikh Bara dana ko def loolu moom lu ma xam la ci moom loolu moom ak jàggle na nag ci moom lam mën a muñ ak lam mën a maîtriser loolu moom ma mën a am képp ko mën a muñ ndax man nit tooñ na ma tooñ bu ma métti ma ñëw di ko boole moom mu ne ma yaa ko tooñ ma ne ko ma ne maa tooñ may bëmb ci saal mu ne mu nit bu ngeen tolluwut am xel bu ngeen xuloo yaa ko tooñ te kii nga may kalaameel tolluwu leen am xel hmm. nit day jël la tey jéggale moom ba gëm naa ne ay pelante ak yooyu moom du ko ci fekk da ngay mu sedd day bàyyi mu sedd mais gis nañu ko mu ni woon ñu ne woon ku ko laal yaakaar naa sëb dana yëngu bari nañ ñu ko jële woon tëngee jëkk ñi ko naanoon ba si Antoine ñoom ñu jàppoon ko daal tëj ko ñoom ñëpp gis nañ fi ñu nekkoon jële nañ ne toxu nañ waa xam nga loolu la wala laal laalaate la dan olof dafay wax ne uuda matul seede ci bëy wopp ndax lu mu ci wax dar ba la ñu yaakaar ne moo tax man matuma seede ci baatinu Cheikh Bara hmm. ni ma jegee seex Bara ak ni ma ko xamee waaye xam nga man làmbay laa dëkk am naa aw fit am naa rakk ju ma bokkal ndey ak baay ñu koy wax fàllu ni mu bëgg Seex Baara ak ni mu ko gëmee benn la ci àdduna boo waxee mu ne ma yaw laa xam ne gëmoo lu bari kon bu la fekk ngay ànd ak Seex Baara rek am na lu nekk ci Seex Baara loolu mën naa ciy wax mais toog na di wax ci baatinub Seex Baara moom. Mm. wala may wax ci affaire kurusam wala may wax ci nangam. Mm. l'essentiel daal dinaa la ci wax leen. soxnaam woo na ma ba ma ñëw. mën hmm. na ma muudu mun naa mun na ma Cheikh Bara lu mu ne la bëgg na ko lu dul kurus. Hmm. lu lu loo Cheikh Bara kurus rek la bëgg. tàcc tàcc tàcc kurus rek la bëgg. bu xasee ba fàttu ca jàkkam jooji mm. yaakaar naa nit ku yor ay millions dana fa ñëw nit ku yor lu nekk dana fa ñëw waaye lay tax mu recevoir la te yitteem parewut ci kurusam googi mm. loolu moom munul nekk mais nag kantaa wax ci baatnub Cheikh Bara moom mm. loolu cee wax loolu da ngay invité benn inconnu boo xamante ne ni inconnu la ci Cheikh mu jëflanteeg moom nga ne ko kan mooy Cheikh Bara ci wàllu kurus wala nangam ak nangam su boobaa bu la ca leeralee dina safe mais kantaa man su ma waxee Cheikh Bara rek ci côté boobu noonu dina ne mu jëng na Cheikh Bara da koy dóoral wala da koy kii te fi mu pirate daa xew ba kenn mënut tabax wax pere ah, waaw. <laughs> mais bi ñu xëyee xëy bàyyi ko ñu ne bàyyi nañ Cheikh Bara Ndiaye. waaw euh, yaakaar naa ne ba léegi waxuñu ni atte ko. Mm-hmm. maam loolu looloot lan maam nga jàpp nit ki arrêté ko tij ko ci kaso bi. waaw ñëpp di xaar procès di xaar atte bi ñu xëy rek ba ko. waaw xam nga xam nga léeg-léeg dina jàpp nit kenn du ko mandat dépôt. Hmm. mandat dépôt moom xam nga. sorewut ak ñoo ñantal. ñoo ñoo ñantal. ñoo ñantal. waaw. mooy lan maanaam kii ah, bu bu ma ko àttee dinaa ko bàyyi te su ko bàyyee dinaa am defet kon naa ko ñoññontal mandat ko dépôt hmm. comme mandat dépôt moom am naa ci droit te yoon maye na ko hmm. naa ko mandat dépôt di xool rek hmm. suñ ko mandat deppo suñ demee ba xam ne bu taxawee nu bàyyi ko tamit ñu ne may nañ ko liberté provisoire wala may nañ ko contrôle su xawma judiciaire xawma ah. suuf judiciaire xawma nu mu koy waxee noonu ñoññontal lay doon waaye àtte moom ñaari ñu bari euh, àtte moom ndax ku àtte ku àtte di nga joxuk dëgg di nga di nga am dëgg mbaa ki nga àtte am dëgg léegi xalaatunoo atte ndax dëgg yàlla nag at nit ci defoo dara rek nee nañ mm. ko sax defoo dara waaye mandat dépôt yi daal ñoo ñontal la rek ak bëgg nga tëj saw làmmañ mm. boo demee nag ba tëj saw tëjoo saw làmmañ mm. état moom ñaari yar la yor benn yar bi xëpp la benn yar bi xupp la ban lañ ko si def xëpp nan mu bañ ñu xupp mu bañ Hmm, waaw xëpp xëpp neexut a récité de. <laughs> non xëpp nan <laughs> ko. xëpp nan ko xupp nan ko. waaw xupp bi jàllut xëpp bi jàllut. benn jàllu si benn jàllu si xanaa si moom dong la yem kon. ci moom dool xëpp xupp yëpp nga nga nga fite. xëpp xupp moom rësati na ko moom <laughs> saa borom dogal na. am na solo léegi Cheikh Bara gis nañu muy defaat muy def ay émission sax yu bari ba ba dem rek gis naa mu def benn émission daje fa ay nit ñu koy laaj ak affaire yooyu est-ce que buy defee émission yi da ngeen toog yéen ensemble waxtaan si yan ngeen war a waxtaane ak yan lañu war a dem ak ndëgg sërëx yeeg question yu kii yeek yooyu yëpp est-ce que da ko war dana waxtaan ak yéen si loolu ndax léeg-léeg xañ na li ëpp doole si sénégalais yi mm-hmm. ñoo koy seetaan ànd ak moom. Mm-hmm. ndax position bi mu jëlee si Ousmane Sonko te Ousmane Sonko moom moo diminuer internet bi. Mm-hmm. mais léeg dana am question wala tontu yoo xamante ni dana ko tontu yoo xamante ni bu ko gars yi génne teg ko si taabal ji. Mm. mën nañ ko jàpp ay erreur de communication. Mm-hmm. est-ce que yooyu dinañ ci waxtaan di ngeen ci waxtaan ak moom. Balla Gaye 1 Balla Gaye 2 dafa mos di bëre ji. ñu ne ko ndax yaa ngi conseil Balla Gaye 2 mu ne Balla Gaye 2 mën naa bëre ba ba pare. xanaa li nuy toog waxtaan ak moom comme munta ñàkk rek waaye bu demee nag naa ko bëral nii wala bëral naa loolu moom duñ ci fekk mhm. Cheikh Bara yaakaar naa koo xamante ni communique lii muy def nii def na ci plus de lu mag gàtt gàtt quatre wala nangam xanaa kay mhm. waxtaan munta ñàkk mhm. loo xamante ni loolu suñuy waxtaanu biir la wala nangam mais kanta xalaat mu def erreur wala nangam loolu moom duñu ko xalaat ndax Cheikh baar mi ngi bëgg a yàgg ci communication te néewaa na wax nag yàlla mu bind doomu aadama. doom mm-hmm. benn doomu aadama bu mat amul. Mm-hmm. yaa may dégg. Mm-hmm. mais yaakaar naa li ngay sippi ci ay waxam ay erreur bariwul. ndax euh, jàng na li mu war a jàng. xam na li mu war a xam yar nañ ko fan ko war a yare donc boo toogee li mu xam lay wax quoi. voilà mais est-ce que tey jii am yenn kàddu yoo xam ne comme ça nga toog ak nit nga naan man toog na ma ak mm. mu ne ma nàngam ak nàngam mm. wala ànd na ma ak diw mu ni ma nangam ak nangam wala sama oto bi diwa ngi ci nangam ak saar yooyu noonu est ce que yooyu man mënoo koy wax taaye bañ a tudd diw quoi. sama man am na ku ma ko mas a wax. waaw ma dëgg la xaw du dëgg. waaw kilifa la. waaw mu ne mas na maa mm-hmm. mu lay seetaan mu ne man mun na ñàkk seetaan Baye Assane mm-hmm. samay soxna dañ koy seetaan mais tey jii bu ma doon wax naan man Baye Assane chaque jour maa ngi koy seetaan nee bu yàggee ma indil gàllankoor Baye Assane bu yàggee ma indil gàllankoor mu ne moom bu ma dee tudd man comme ça tey ji muy def conférence de presse naan ni xool leen Baye Assane ni muy waxee hmm. wala roy leen si Baye Assane xoolal Baye Assane mi jóge daara ja sax moom moo leen ëpp information moo leen dàq muy traité nee bu ko waxoon hmm. maanaam nit ñi dinañ détourné si man pour indil ma problème daal pour mën nañ maa jàpp sax man non moo tax du ma tudd déedéet est-ce di leen tudd si sa communication est-ce que ah. du doon lu leen di yàqal déedéet doon lu leen di yàqal xam tax du doon lu leen di yàqal am na ñi Cheikh Bara ñi mu war a tudd ñuy yàqule hmm. xam na ko bu baax a baax a baax ñi bokk APR. Hmm. di fa ñëw guddi. Hmm. di ñëw kër Cheikh Bara guddi. ah waaw. te bokk APR waaw est ce que ñëw nañ fa ngir politique. am nañu bokk APR ñu ñëw kër Cheikh Bara waaw dam waaye dama ne ndax ñëw nañ fa ngir politique. luñ fa man di wut si rek kay ñoom xanaa waruñu fa aw. ah kay. tudd na tudd moo xamante ne nii. la fa ñëw keroog ci ay nit guddi gi daa wax kay man guddi waaw dafa dafa ndànk waaw. une heure jàpp deux heures. Sëñ sax ni ba Sëñ Tuubaa sax am na ñu daan root rootum guddi am na ñu daan root rootum bëccëg. bari na ñoo xamante ni buñ jaaxlee. lool lool lool daanu ko fëgg de. waaw buñ ko fëggee mu def ak ñoom ci baatin ndax mos ngaa gis ci àddina lu jëm ci wàllu baatinam. mun a diw seet si na ma du ko def mukk ci àddina Macky Sall. su ko woon ne ko Cheikh Bara mu naa ma ne ko sama bopp day mett damaa bëgg nga moccal ma ko. danaan ko bàyyil ba waxtu sàngam ba nit ñëpp tëdd nga ñëw fa bu fa ñëwee ba mu dugal ko ci xunti ma su jëflanteeg moom la may jëflanteeg moom ba pare. man mi ko gën a jege ak ñi ko gën a jege ci àdduna amul kuy xam ne ñëw nga kër Cheikh Bara hmm. parce que loolu domaine am la. daa mel ne déggoon naa saaru détail boobu dañoo am na ñu fa ñëwoon di waxtaan moom si pour yóbbu ko si Macky Sall wala Macky Sall yónni wala Marème Faye saaru détail boobu. xaw naa loolu loolu loolu la. Hmm. loolu moom non non si penc mi laa ko dégg woon. moom la ko waxee penc penc man loolu dégguma wax ko waaw waaye daal naa la wóor ni hmm. lépp lu mu wax ci tere bi tudd ci nit. Hmm. loolu moom lu ñu ñu mu war a tudd la. Hmm. waaye ña lam lam ñaan a gën a sensible fop hmm. am na ñu fay ñëw guddi ak bëccëg. yaa may dégg am na ñoo xam ne bu ñëwee sax du dugg ci buntu kii bi ca buntu xunti ma la ñuy jaare jaar fan war a jaar mu toog ñoom recevoir leen ba pare ñu taal seen oto dem. amul ñu ne ku nekk ci kër gi kuy xam ne kii nii Cheikh Bara jëflante na ak moom. ak niteem dépassé na foofu. niteem dépassé waaw digganteem ak digganteem ak Ba. waaw. lan moo ci nekk dëgg-dëgg ci biir diggante ak Amadou Ba ndax euh, da ngay dégg waa kër Amadou Ba yi naan Amadou Ba ak Cheikh Bara xamante nañ te Cheikh Bara sonal Amadou Ba lool ci kaw nii. Amadou Ba lan ci nekk lu mën a day am ñaar daa am ñaar wuute. Hmm. Amadou Ba ak Cheikh Bara xamante nañ loolu du ay wax dan naan Amadou Ba xam na seex Bara. ah Amadou Ba xam na seex Bara. <laughs> waaw kay. <laughs> <laughs> Amadou Ba nu mu xa nu mu xamee Cheikh Bara. ah déet. man daal xam naa nan daje joo gis. Hmm. am na ku cay gën a sawar. am na ku cay gën a sawar si nañ daje. waaw waaye Amadou Ba daal. Hmm. xam naa ne xam na Cheikh Bara. yow si ndaje mi yow dawoo si bokk. ndaje ma ndaje mi Cheikh Bara ak bu ma bokkee ca ndaje ma bu ma est-ce que daanam daje ba pare. déedéet dafay laaj <laughs> xam nga bu fekkan dañuy daje. Ah. ma bokk ca ndaje ma. Ah. kon kàddu gi ma la wax sàng day tuxu. Ah. kon kon Cheikh Bara sutura du ko am. dama ne la. Hmm. Cheikh Bara nekku fi. Hmm. bu dee ci cadre politique. Hmm. am na fu mu far. waaye ci bu dee ci digganteem ak li ko yàlla may. loolu faru ci fenn. kon tey jii bu Amadou Ba demoon mu ñaanal ko. bu fa Amadou Ba Ba demoon di ñaanlu lu lan. ñaan pour jël réew. ñaan pour jël réew mi. waaw ah, da nga ni digganteem ñaan. ku ñëw di ñaan lu moom dana taxaw diggante bi far far par mais liggéey liggéey la ci wàllum liggéey bu Amadou Ba ñëwee. Hmm. mën na koo ñaanal pour mu jël réew mi. waaw xam nga bu koy ñaanloo moom dina fatu. Hmm. saytu. Hmm. bu saytoo ba xam ne Amadou Ba mi moom du jël réew mi. mën na koo xam. ah luy mën na koo xam. mën naa xam nit ku nit ku fatu. dugg xalwatu boo ko jar joxee lu jar mu duggal la xalwa su génnee kay lu mu bëgg ci xam ci yàlla nag dana ko xam. Hmm. léegi bu fekkee Amadou Ba jaral na ko mu fàtt dugg xalwa hmm. bu génnee hmm. xam ne mooy jël réew mi man na koo ñaanal boo xamee ne du jël réew mi mun ne ko Amadou mun naa ah, mu ne ko bu ma lekkee sa xaalis dama lay sonal rek waaye réew mi sama borom dogal ndoo ci mën a toog loolu am na solo ah. mi ngi noonu yaakaar naa ni dégg ngeen waxtaan wi li li ñuy wax Cheikh Bara da jeex na ñu jàll ah man de foofu man daal maa ngi digloo rek foo laaj ma tontu la fu ma laaj nga tontu waaw ah. am na solo euh, mi ngi noonu mbokk yi kon di ko sant bu baax di koy gërëm si wàllum politique gis nañ ni yéen yéen ñi nga xamante ni da ngeen di wax lu baax. waaw yéen ñëpp Amadou Ba ngeen àndal lan moo tax ngeen ànd ak Amadou Ba. bu ma dugal. yaa may dégg. Hmm. yéen ñépp ñan. yéen gir gir gir yooyu. xam yow koo teg fii te am togum xelam ko dugal dégg naa sax nga naan ma nga amul waxkatam lu baax lu baax. mais nga ñëw si Amadou Ba rek mi ngi nii. bàyyi sax yéen ngir yooyu Amadou lan moo tax ngeen dem farali Amadou Ba. bu ma duggal laa wax. waaw. yow kay waxal dama la dama tontu déet dama dama ne. Ah. bul ne. Ah. lan moo tax ngeen dem farali Amadou Ba. lu may wax kon. yaa may dégg. lan laa war a wax voilà. loolu nga war a laaj. Mm-hmm. ku la wax ne ngir yooyu ñëpp Amadou Ba lañ faral. wala ku la wax ne ñëpp Sonko lañ faral. non Sonko kay farul leen ak moom. ku la wax loolu griot bu ànd ak Sonko kay laa gisul. waa na neel gisoo ko. gisuma ko de gisuma benn griot toog naa man la griot bu Ousmane Sonko. non ne xam nga griot. mais griot ñeneen ñi dañuy xam. Amadou Ba ñëpp xam na ay griot déedéet géwél du pour Sonko géwél du pour Ba géwél du pour kenn géwél xam nga pour kan hmm. géwél pour wax lu baax la. faaw nga xam loolu ba pare su ko Amadou Ba soxlaa ci yow nga waxal ko ko su ko Ousmane Sonko soxlaa ci yow nga waxal ko ko. lu tax du ngeen ko waxal Ousmane Sonko. yaa ko déggul. yow yaa ko déggul. mais griot daa war a taxaw ba xaar nit soxla ko nga wax a ko ko wala da ko war a gis gis ni lii mooy dëgg mu wax ko griot noonu la daan def. waaye griot boo xam ne fekk daal suñu doo wax. maa ngi ñëw xam nga fi ne diggante Macky Sall ak Ousmane Sonko. Hmm. naa la ci defal benn jàngat boo xam ne. bisimilah ci bàyyi xel bu baax a baax a baax. waaw Sénégal yi kon diglu leen lool yi. dafa am benn conséquence boo xam ne boo koy risqué. Hmm. da ngay xool bànneex bi nekk ci ginnaaw conséquence bi ngay risqué su ko bànneex bi jaree jar na nga risqué conséquence bi ngir bànneex bi nekk ci ginnaaw waaye dafa am benn bànneex boo xamante ni tamit bu ko risque di risqué na xool conséquence bi nekk ci ginnaaw conséquence bay nekk ci ginnaawam su ko bànneex bi jarul jarul ngay risque bànneex boobu Sonko risque na benn conséquence mooy dëddu nag njabootam. won leen ginnaaw ñàkk na alalam amul jàmm amul salaam ngir am réewam jaral na ko ba tey mi ngi tëdd ci kaso bi kooku risk na benn conséquence boo xamante ni tey ëllëg mi ngi ne mankat ku jël li la naqari ba mu jeex tàkk yàlla du continuer mu mën na laa jox ëllëg li la neex tax na mu risque conséquence boobu mu des Macky Sall Macky Sall gëmmal dóor ji ñu ko doon wax gëmmal dóor mi ngi soog a jot mankat kat naa respecté. comme bokkatuma naa bàyyi candidat yépp nu bokk bu candidat yépp bokkoo kalamiya gañ ku gañ yàlla baax na bu ma paree lu ma ca fekkit baax na loolu mooy benn bi beneen bi ci des mooy naa tànn candidat yi nga xamante nii danoo war a bokk wala ma jalgati wala ma doxee ni ma neex su doxee ni ko neex après loolu benn bànneex la boo xamante ni dafay nekk ci moom waaye ëllëg lan mooy doon conséquence bi loolu ci moom la des na gëmmal dóor mi nga soog ko jot hmm. def li mu bëgg lu ko ci fekk mu jël wala mu def li sénégalais yi bëgg lu ko ci fekk mu jël hmm. ban moo ci gën bu gën ci moom hmm. xam nga nag Macky wax dëgg yàlla fal nay ministre conseil ñu nekk ci moom nekk ci wetam guddeeg bëccëg di ko waxal tuuti naa ci naa ko biyee gën ci moom waaye ña ëkkum ëppum jàng fopp nekk ci wetam ñoom xam nañ bi gën xam nañ bi gën ci réew mi am na solo juge yi tamit jàng nañu yaakaar am na noonu defe hmm. voilà léegi dama lay laaj li nga xam moom la ñuy tëjee ndax ni ñu ngi si 24 minutes. waaw ma lay laaj 6 ni muy doxee noo ko gisee. Hmm. après laaj la président Macky Sall ni mu yoree réew mi. Hmm. noo ko gisee. laaj la taxawaayu Sénégalais yi si réew lan la war a doon taxawaayu Sénégalais yi ni muy doxee si réew mi noo ko gisee. xam nga damay bañ a wax ci lu ma maîtriser wul. waaye gis nga xam nga. bàyyi daa bu fi la fekk xam nga néeg yi seen yëpp. bàyyi Assane man mii li ma war a mën a wax yaa ma dàq waaw waaye waaye danoo gaaw ci woote bu na waaye nga wuy jeex Cheikh Bara dina la taxaw <laughs> Cheikh Bara <laughs> taxaw nga la ma ca nar jig man <laughs> waaw man de li may maa ngi wax yàgg naa ko wax ne naa hmm. li ma gënal ci àddina hmm. moo doonoon tey Marème Faye Sall yor ab otoom hmm. nga yor sob oto Marème fay tooñ la mbëkk la. Hmm. nga ne wàcc na ñu ne nga ne ko non non nan ko nan wooyu ko sax. Hmm. wala nga dajeeg benn ministre mu xos sa oto. Hmm. wàcc taxaw nga ne ko nan wooyu ko sax ñu ñëw ak ji gin ko jox yow. ñu jox la ko man loolu moo a gënal ci àddina man justice bu normal moom laa gën a bëgg ci àddina parce que xamul tax. justice bi daa normal. ah néew ma normal lu dama ne moo ma gënal ci àddina ndax xam nga lu tax du ma tooñ te bëgg naa man saa yoo ma tooñee tooñ goo xam ne mënuma ko muñ ñu dem ci yoon hmm. te bëgg naa saa ma demee ci yoon la nga xamante ni mooy far samay rongoñ hmm. ma am loolu hmm. kon justice moom daanaka am réew président yoru ko lenn nu yor président am réew xam nga lu yorum réew mooy justice bu normal justice bu normal voilà noonu la demee tekkiwul ni ñoom normaluñu tekkiwul ni dañoo def lu ñu wër ko def bëgg daal mu gën a normal. waa nag moom daal nay nay gën di baax tey gën di posé. ñoom suñ defee li ñu war a def ba pare. Hmm. kun mun ta dàq. Hmm. lu dut yóbbu la maatam ca tàngoor wala man. Hmm. yaa may dégg te bu la yóbboo maatam ca tàngoor wu nga jënd sab kilim ne fa. yow defal sa akulay taala def li nga war a def. am na solo de. voilà loolu am na solo président Macky Sall ni mu yore réew mi. noo gisee. président Macky Sall ni mu yore réew mi waa ni mu ko yore woon bu njëkk day moom daa war a toog xalaat daal. xam nga ko yore laa da ngaa jàpp ni baaxut. Baye Assane xam nga man sama borom daa dogal suur suur xal ma lay bañ. ah de suur xal ma ah yow gis yore réew mi yaa ngi gis réew ko président Macky Sall yore noo gisee laa. ni am na ci fànn goo xam ne daal mat naa joyanti tuuti. joyanti de moom lu lu baax la dañuy jubbanti tuuti rek. waaw mat naa joyanti xam nga lu mat a joyanti. Hmm. mooy yàlla du def zaayir ci àddina. moom def na loo xam ne grandeur la mooy. Hmm. ne du ma euh, du ma bokk du ma euh, posé candidat troisième mandat noonu la ko waxee woon. Hmm. taxaw na ne bokkuma. Hmm. bim taxawee ne bokkul tamit am na ci ñoo xamante ni ñi ngi taxaw bëgg a bokk. ñi taxaw bëgg a bokk ñëpp muy Amadou Ba muy Ousmane Sonko. muy muy muy ku man a doon ci àddina hmm. ndamal Macky Sall daal xam nga fi mu toll nii ak ni mu yore woon réew mi hmm. mi ngi rafete ci li des ci sunu kanam hmm. mi ngi ñaawe ci li des ci sunu kanam ah, su ko rafetalee ba ñëpp bokk moom rafet na ci moom am na woy wurut fay ci àddina su ko ñaawalee ba tax euh, am ñu bokk am ñu bokkut loolu nag mën naa doon conséquence boo xamante ni ëllëg la mu jur kenn xamu ko ëllëg la mu jur kenn xamu ko jeexal nañ tàkk mais Ousmane Sonko dañ dañ ko génne woon si liste bi. waaw mu pelante ñu dugalaat ko ñu ne ko doo dugg. waaw mu demaat fee ñu dugalaat ko ñu ne ko doo ba léegi nii dugg. waaw noo gisee loolu yi. waaw xam nga Ousmane Sonko moom fi mu toll nii euh, loolu ñu doon wax naa ak waat moom ku ko waat ba wàcc Ousmane Sonko moom waat na wàcc na. Hmm. xam nga lu mu waatee wàcc na. Hmm. bu fekkoon Ousmane Sonko dafa am benn droit boo xamante nii daf koo xañ ne ko yow munoo bokk. Hmm. su boobaa dañ naan lii kër justice la. wala lii kat kii la wala lii kat kaa la. Mm. waaye moom fi mu war a jaar ngir bokk. Mm. jaar na foofu fépp nungul nan ko ne mar war naa mën a bokk. Mm. kon li ci des mooy respecté li nga xamante ni moom la justice dogal. bàyyi ko mu bokk su bokkee. bu waree gañe gañe bu Amadou Ba waree gañe gañe bu Bougane waree gañe gañe bu kenn waree gañe gañe waaye xañ kenn nag ne ko damay bokk loolu moom fi mu toll nii daal loolu mooy li nga xamante ni erreur la te jàpp naa ne Macky du ko def Sénégalais seentuwun loolu mm. ndax nit ku baax la te nit ku am grandeur la mm. te xam naa ne comme moo taa tànn ñii ba teg leen fi ñu dogal gëm naan du dindi seen wax mu ko di dogal leneen nit ñee yàkkamti rek waaye man jàpp naan Sonko dana bokk Sonko dana bokk cant ngërëm ñeel na la waaw xanaa la cay topp mooy mm. di nuyu sama yaay ajaratu moomi kebe ajaratu moomi kebe waaw xam tax ma di ko nuyu Assane xam nga ne moom bu fekkaan alxuraan la mooy doon alam nasra wala waaqee hmm? waaw waaw boo ko sangoo am xaalis boo ko naanee am xaalis boo ko jàngee am xaalis. ajaratu moom Kébé. barke Cheikh Ahmadou Bamba Xaadim Rasul. Hmm. waaye maa ngi koy nuyu. di nuyu way juróom wa léeg-léeg nag ma amu naqar. Hmm. léeg-léeg ñu naan njuga njuga njuga njuga njuga waaye xam nga yaay moom yi. barke Cheikh Ahmadou Bamba Xaadim Rasul fee mu toog di sant. way juróom wu jigéen wa. soxna moom soxna moom soxna way juróom bu jigéenu mus toxool lu alaaj am lu dul takk ndigam ngir liggéeyal ay doomam moo tax tey nii mu mel xanaa moo alaaj njuga bu deman bu juran ba ba mu jeex te jurut moom mi hmm. erreur am su deman bàyyi fi moom mi tamit erreur am noonu la demee yàlla na ko sans borom la fal ca aar ko te suturaal ko ci barke seexul xadim ndax olof yi nee nañ nee nañ kër bàyyi la hmm. waaye ku nekk même ma si yaarat ngay naan hmm. waaye ajarut moom mi kebe yàlla na ko yàlla lafal cat ci barkeb sayduna muhammad alayhi salaatu wasalaam loolu laay tëje di nuyu nag seex baara njaay di koy ziyaara di nuyu mbokki làmbay gépp maa ngi nuyu bu baax baax a baax a baax sama waa dëgg ñi ma bokkal ndey ak baay commencement bu mbay sama taw papa mm. ak baay seex di nuyu mm. yaa xooba jëng ak gansiri ak mm. sama soxna ni ma ko waxee alaaji fay su ma rakk la su ma doom la su xarit la maa ngi nuyu sëriñ Moustapha Diouf la mbay di nuyu sëriñ Mbay góor gi Sarr di nuyu nag sa deex ak Maxadi Gueye sama jigéen boo xam ne mm. Maxadi mm. nag ma ko ñaanal bu baax sama xarit la suma mag la suma lépp la mm. euh, euh, ñoom Aji Diop Mame Diarra taal euh, ñoom ñëpp maa ngi leen di nuyu di leen ziyaara di nuyaar Filisek Sadex donc Ndiouk Arona mi ngi noonu yàlla na borom borom daaru Pamba Diane yéen ñëpp ñu ngi leen di nuyu wasalaamualeykum wa rahmatullah koy sant bu baax di koy gërëm kàddu yooyu nga xam ne yëkkati nga ko ci soxna Momy Kébé day kàddu yu am solo man mii yàlla xam na nii bi ñu xamante léeg-léeg suñ déggantee mhm. ah Baye Assane loo soxla ma ne ko naa ñaanal la nga yàgg fi te wér rek mu ne ah amu amu yitte ma ne ko wax dëgg yàlla ngi sant yàlla mhm. ndax it wax yàlla man moom su ma goree mhm. fi mu toll nii li ma war rek mooy di sant yàlla rek ndax maa ngi sant yàlla bu baax daal kon nag moo tax ma ne ko del gest rek gaa yi fi des. <laughs> des na beneen mais fi ne nii maa ngi sant bu baax a baax. gis nga ah. moome. bu nu tëggan làmb bi bëgg Serigne Salihou Mbacké. waaw moomi kebe na damay wàll ji ca làmb ja hmm. ku bañ am gàcce bul ngeem sa mbër bu hmm. moomi demee jël coupe bi barke xaadim rasul buy dem dina jàggati billaahi wala ak bëggam sëriñ Saliou amul dayo ndeysaan am na solo ñu ngi koy ñaanal mu yàgg fi loolu te wér yàlla seede na ni ma ko waxee dina amee bu ñu fi mujjee déggante mi ne ah Ba Assane yow doo doo wax dara kenn dara loolu ma dama lay ñaanal rek ndax wax dëgg yàlla man moom maa ngi sant bu baax a baax a baax di ñaanalaat bu baax rek ñëpp rek ñi ñuy bàyyi xel di ko ñaanal mu yàgg fi te wér di ko ñaanal ñi amee initiative bi taxawal lii muy groupe sodi solution. Sanjogo Sanjogo Sooy bu ndeysaan nga ñaanal leen xam naa ni sax man am naa dinaa waxtaan ak ñoom ñu xool nooy ñëwee ba ñu def émission boo xamante ni mu ngi jëm si wàllum ni ñuy jàngalee sëy. sëy sëy. waaw man naa ko lool. waaw sëy man ko dama laa xool rek. waaw xam ne war ngaa mën a jàngale am sëy ndax fi mu ne xam na siddit yi nombre de siddit yi nga xam ne day nekk ci jigéen te lekk du ko dundal naan du ko dundal xam nombre de siddit yi nga xam ne day nekk ci góor te lekk ko dundal naan du ko dundal te benn point faible moo ko yee Hmm? te boo dajale woon téeméer góor xamuñu ko. man na maa ngi doog a dégg sidit yi ngay wax sax. waaw am na am na góor am na juróom fukki sidit ak ñett yoo xam ne lekk du ko dundal naan du ko dundal. juróom fukki sidit ak ñett waaw. bu dee góor jigéen mu am ci ñett téeméeri sidit ak fukk ak ñett 313 jëy sun. ji jigéen fi sidit yi nekk. da lekk du ko dundal naan du ko dundal. sidit fi ñu nekk benn point faible moo ko yeeg ñoom. boo xamante ne tey si juróom fukki góor a am juróom fukki siddiit ak ñett jigéen ñaar sidit ñett téeméeri sidit ak fukk ak ñett. ñetti téeméeri sidit ak fukk ak ñett yoo xam ne lekk du ko dundal naan du ko dundal te benn point faible moo ko yeec ñoom te foofu boo leen fa màttee boo fa màttee sa soxna maanaam boo sëyut ak moom guddi gi biir bi métti mën na koo kii waaye boo fa xasee ba màtt. màtt ni bëñ. du du doon màtt boobu màtt bi ngay wax màttut ndànk lay doon rek. mel ni ah, luy ah muucu nàmp mel luy ngeriñ dugub. bu fekkee xam xam nga euh, ngóob waaw kecc kecc waaw loolu bu beneen émission loolu moom sëy moom jàng ma maanaam sans borom dogal na ni ñuy jàngale sëy hmm. téere yooyu moom am naa ci xam-xam loolu insha da nga ñëwaat fii ñu def ko spécial aw sëy ak sëyin aw sëy ak sëyin waaw waaw ah, ab sëy ak allah loolu moom ñu ngi koy dikk ñi nga xam ne ñu ngi ñuy bàyyi xel hmm. ci semaine bee di ñëw sax ndax sëy bi dañ ko war a xam bu baax a baax a baax waaw waaw loolu bari na sëy yu tas loolu rek la waaw insha allah boo gisee pël yi di mariage naan xeteme hmm. pël bu ko mënut doo sëy xeteme mooy na loolu nag beneen émission rek. lan beneen émission waaw kon ñu ngi koy di dikk gaay waaw waaw bu heure bu ñu ci géeyee rek amul problème. <laughs> incha allahu rabi ceey ñu ngi koy sant bu baax di ko gërëm. Euh, Sëriñ Muudu wax dëgg yàlla di nit ku baax di nit ku am ak taalibe waaye di nit ku bëgg doomu aadama nit ku mën a wax nit lu baax waaye nit ku am kóllëre nit koo xamante ni képp ku mu gis ngay xarit Cheikh baar respecté na la teg la fam teg Cheikh Bara ñu ngi koy ñaanal baax suñu borom gën koo dëgëral suñu borom bàyyi ko suñu kanam ba mébét bi mu am si réewam yàlla kartanal ko mu àggale ko xam naa dañ si dikkaat leeral waxtaan si waxtaanu ay sa yeeg yooyu yëpp incha allah ndax damaa bëgg solution moom yéen ñi nga xam ne yéen ko taamul seen bopp amul fenn fu ngeen di dem di wuti leneen lépp am fi incha allahu rabbi ñu leen di sant di leen gërëm jërëjëf Abdoulaye Diallo jërëjëf Modou Diouf